amul. bari naa ne yow yéen a ngi ci kaw. dama jox ko Sadio. ah. te boobu xew moom Sadio dina ni. mais maa ngi na mun naa xawoon naa laa bàyyi nag da ngaa tardé. non bu wax dugg si dugg si. na def. kuul maa ngi si jàmm. nit àdduna yëppay ñëw tey. tey. waaw waaw sa gain bi laa la indil. waaw waaw sama copain yi nii mooy sama. waaw waaw gel waaw sama jëmm. alors mu ngi nii gain mu ngi nii gain dañuy génne. mais sinon. waaw cool. xew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 nettali waaye lu ma dégg mu siiw dem ma sama nee na faal ko di dang fànnu may sama maam waaye jëri ngoone maa law bi sama ku lim seen naat sa bis sa yaay sa la may a mu tali laay doon oto yi di yaaw sama kaw. waaw kay wax amul dara xewul. waaw bas da nga jël xaalis ma def attaque gu lëmbal rek. bu saf sap. Hmm. waaw lëmbal ba saf sap rek. <laughs> loolu moom mënu ma ko bañ a. su ma nee jarama jarama ñamba jarama jarama ñamba gën gën gën gën loolu laa bëgg a dégg xew bi ba tey day continuer wula tafaak ma xeelaat ma noy fayoo jaru xeex jarul xuloo jëlal benn tànk ba aca potu mant ba jëlaat benn tànk ba naan ko yow bébé yow bébé yow gis nga lii ak ni mu nooyee ak ni mu ko dabalaawee bébé yow yaa ko moom waaw waaw Serigne Ngoné Mbaye Serigne Ngoné Mbaye na ngeen ñaan la Serigne Ngoné Mbaye ay bi lay la la dina fe dan na fi ñaaw wallay la sa yoon dañu def ay xol la yàlla rafetlu dal mu yor sa tilim ay bilay xajal ma najal may ma ma ñaati ay walay xajal ma najal may ma ma ñaati ay seedi lan la lay jëf moo mu ko jaral ay e defal lu la neex yaa tey daf leen defal lu la neex yaa tey ay bilay ay defal lu la neex yaa tey lan la mën na la defal la

naa ko te lay utiliser Fall. ah. valise yi ngeen sol yëpp ah Fatma. dangaa dof wala lan moo la dal xam nga lu mu bëgg nga xam ko fi mu toll yi dangaa dugg ci néegu say waaw. defal sa bopp bii ne dangay wujje dangay wujje de baax na. damay wujje ba bàyyiwu leen dara yéen dara yow ak Daba Diop bàyyiwu leen dara ci valise bi. pour lan ñuy bàyyi dara nga nekk ñaareel sa aaw bi nag bul dof de day defante. waxuma la nag ci defante ci yéen ñaare day defante ci biir néegu sëyam jégg defal sa bopp loolu. Mm. yow tamit. Mm. <laughs> ah kon baax na. Ah, loolu rek nga bëgg. bul bàyyi dara. Mm. virgule bu ko bàyyi. baax na xam nga lu ma la bëgg wax nag euh, comme man damay dem. te kër gi. mooy génn naa kër gi mooy kilifa amatu fi. loolu de moom mooy mooy wax ji yàqul li seen kër gi kenn ku leen di redressé amu fi. Hmm. léegi nag man li ma bëgg mooy yaawa awa hmm. ngir yàlla rek dee ma waxtaanal ak moom. Hmm. déedéet damaa bëgg rek ngeen di communiquer yéen ñaar di waxtaan dépasse bi naa ko bàyyi ci daba jóg. nga ne ànd ak joie de vivre. ah pour la c'est bien. ah. de nouveau marié ñi di soog a sëy ñoom ñoo mel. kon ah. mu jëkkër man. est-ce que xam nga ne sa papa woote na léegi. sama ma. ma ma jur bis ni bis ni ki tey sa baay la de. sa papa. pertam et ba ma duggee si néeg bi est xool naa la yow. man maa la xoolal wuy euh, ma ah. ne ko mu teel a génn ci man. waaw loolu nag laa loolu nag laa bëgg ñu wax nag non non na génn ci man rek. waaw ah, wuy ma wuy ma comme ni ma jàppee jàppee ko noonu coow kii jàmm ni ñooy. ma jàppee ka ma ñu ma la jàppee yow ma jàppee ko kii. waa xel xalaatu ko. yow kenn nga di. waa déedéet damaa bëgg ngeen mën a nekk ci kër gi nag waaw moom sax xew gu fi indee su paree dem. ah mais maa ko dégg gi nekk sama xarit la. dama yaa dégg la kër gi. dégg nga ko dégg. sama place bi ma toogee woon foofu lay toogee. place bi nga woon nga dénk ko keneen. waaw. pour yow yow ni nga ni nga mel noonu la ñëpp mel. ah kon yow da ngaa neex. fekk ay maire yu ne ci kër gee ki paa nga naan nga leen di dénkaane koo leen di dénk kii dalaa métti. gis nga ba tey waxuma ak yow. man maay ki lay adressé wu ma ko parole man maay ki lay tontu. man yaa laa tontu nga kër gi kër gii. dafa ah. ñëwoon xew xew mi romb na nga dem yaa ngi yow léegi yow. li nga meer <laughs> bii ma pose la man. yow meer bu doy yow xanaa fan nga dem. waaw tamit nag waaw nag maa ah, fan la nekk ci kër gi man laa wax ak yow. ma. eh. dama ne yaa ne woon fii lañuy ñuy laabaat bii ne faax. mère ba mooy gàddu valisam. romb leen ànd ak paawam. dem def lune de miel tubaarikaal la ñëwaat. déedéet yow yaa waxoon fii ci kër gi ne da ngay laabaan. man. waxoo ko woon ak ñoom Mbaye ak ñoom Ibou ah. wax ma ko. ay ay. Ibou Ndim ne moom ko wax mu ne carrément Ngoné Mbaye nee na koy jëlee fi lañ koy ñu toog di xaar laabaan nga ne ay lune nii ngay def di déglu ay conseils yoo xam ne dara baaxu si. bàyyi di déglu ay conseil yu baaxul. waa léegi dama lay laaj fii fan laay nekk sama jëkkër. mu ci nekk ban nekk. fii nekk kii nekk ci balcon bi kii nekk ci buntu. Ah, nekk bi keneen nekk ci fenêtre bi tey nga maa dimbali soxla naa say xalaat de pertaf fi lay añee tey pertaf ma ah, ah. <laughs> reviens sur terre <laughs> moo sama waay nga mënuma laa mer perte fii la yaa maa la wax lii woo na ma sànq. xaw ma boobu ba tey maa la bëgg laaj naan la perte absence am bu metti bi ci kër gi pour lan la. waaw dafa voyagé woon yaa ngi gis boobu ba tey perte ñëw fi dafa waaye nee na day ñëw añ si defar naa valise beeg mooy yi mu jëndaloon yooyu noonu boole naa lépp ñu def ko ci valise. ndaama yi mu la jëndaloon ba boole nga boole naa lépp léegi bu ñëwee bu añee ba suur ñu def petite petite sieste. wuy sama day après ñu wàkk. kan laay ñu naay. ay man kan laay sieste. na mun naa sieste de. Eh. <laughs> laay la kaay abal la ko. ah abal. ah baax na. ah. baax na pertaf moom sax pertaf la baa man moo wër sama pertaf man. def dafa dafa ma métti ah mag man bàyyi sama liggéey yëpp. bàyyi samay voyage lépp pour dimbale la nga ànd ak man dugg ak man ci mbedd Medina yëpp ruq ak ruq fu ne nga dugal ma fa taxawla taxawaalu loo ma ba ma sonn te munoo ma wax ne ma xale bi fii nga ko sànni. Njaay man nit laa benn bopp laa yor yoruma ñaari bopp man depuis boobu ba tey munuma lekk ba suur munuma naan ba màndi su ma tëddee sax du ma nelaw ndax di xalaat nan laay def ba wax leen dëgg bi ngeen xam xale bi sànniwuma ko Medina xale bi sànniwuma ko Dakar. non mais Maysa yow lan ngay wax nii. Ndiaye mais Maysa Maysa déglu ma am na loo xamante ne nii nit bu lay jàppale yow it danga koy jàppale. gis nga nekk ci benn situation bi moom moo tax ma jël décision ne dama lay jàppale est-ce que yaa dégg kon donc su ma bàyyi sama liggéey bàyyi sama voyage bàyyi lépp mieux vaut nga wax ma dëgg bi ci bi muy teel ko Medina koñoo koñ ruqu ruqu yow fu ne nga dugal ma fa. mënoo ma wax ne ma xale bi fii nga ko sànni tey nga wax ma ay fen ay fan nga sànni xale bi. Ndiaye xale bi ngaay laa ko bàyyi ngaay laa ko sànni. mais est-ce que nga sànni xale bi sax parce que tamit man yow tamit may sax mun mënatuma la comprendre. fi mu nekk nii dëgg dafa jot pour ma wax ko dëgg bi nag leer na naan léegi xale bi ngaay laa ko sànni sànniwuma ko dakaar yaay xale bi mënuma fa réer mais man problème bi mooy xale bi ndax mu ngi dund ba tey. ah loolu nag moom pour ñu xam ko foog ñu dellu ngaay fa nga ko bàyyi woon ñu defaat ay enquête pour jéem a xam sax ndax mi ngi dund ndax mi ngi dund wala dundul tamit parce que foog ñu xam yan condition nga ko sànnee foog ñu xam fi nga ko sànnee. naka waa góor. lépp jàmm mbaa yaa ngi jàmm mais li nga def naa yées na de. merci beaucoup cantal ma waaw mi lii lu doon yow nga def sa miray wàcc nii ak say kii nga ne doon nuyu góor. yow loo def xale bi. bàyyi ma ñu may yi loo def maa ngi booy yow. yow doo demee kii moom ah. deret bi tàng de ak rouge bi mu def nii. maa yéeg xoolal. waaw xool yi maa faal. ok waaw ci yow xoolal bàyyi na. man ñu continuer lii ci Ndiaye laa la wax. en tout daal li ma la daal mooy. ok dina ma tàmmee xoole de que ma rek yow xoole de tey foofu. xoole. waaw. na la wala neexul. c'est super beau. santeer na naa kay rafet na de macha allah. yaa ko moom te da nga am góode naka de. non damay moroomu gars yi. yow nee naa la gis nga ko tax ah. tey moom xaw ma lan la mais dama la anam. a preuve. amee déedéet. ay tey da ko ñu dem toog. waxtaan. mais gis ko am na foo jaar ak moom nag. waaw mais la rek tamit. loolu. xam ndax mi ngi dund wala dundul foog ñu def ay recherche comme nee nga ngaay la nag ngaay moom suñ dëkk la dara mënuñu fa réer. Ndiaye man fi mu nekk nii yow kese yaa ma mën jàppale. non man bëgg naa la jàppale mais yow it foog nga jàppale ma tamit parce que ni nga commencé nii bu nekkee moom ngay continuer. Ndiaye maa ngi lay wax dëgg bi wax naa la dëgg bi. fi nekk nii xam naa xam naa mais tamit dama lay avertir parce que bu nekkee ni nga commencé noonu nga nar a continuer tamit na la leer ne duñu am benn résultat parce que foog nga may wax dëgg tamit. parce que pour ñu am résultat foog ñu xam dëgg gi ngaay la nekk dëgg la gëm naa ko léegi foog ñu dem ngaay ñun ñu def ay recherche jéem ko gis pare pare boo bëggee tey tey te sax mu dem ah. ngi si jàmm. waaw ana Ngoné Mbaye. mu jooy. perte ñëw fi. non. non non xoolal si dara. jëkkër Ngoné Mbaye daal. non xoolal si dara. Eh? naam. Ngoné Mbaye. vous êtes marié. si la nekk. Mm-hmm. ça va bien. comment vas-tu ça comme ci comme ça. à la perte. ngi fi. yaa ngi ko bu baax. toppatoo nga ko. bu baax baal ma def koy agressif laa ba nga koy def. <laughs> yow. baal nga <laughs> yéegi ni pare seen lune de miel bi. ñun. waaw est pare wu ma ba pare sama tur laay xaar. yii. ñoo ngi de. ñoo ngi sa greffage ay na. merci. tiitul benn waaw fan nga jëm demee bi doom wax fan ngeen jëm seen yaawa miñ ci biir nag bi xam ne doom wax fan ngeen jëm seen mën nga <laughs> mi ngi si biir nag ba ah bon ma sama bopp day métti sama naan café foofu ma naan xanaa bu mu mënee sa kër nga teral ma café laa bëgg sama bopp day metti. Aïda est-ce que doo ko defaral sa bopp. foofu mu cee man ba tey mën naa ko defar. maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi sama mën. Hmm. Pikine laa def. ok Pikine. Mhm. maa ngi ñëw. fii yoon naa. ma tubaab préférée ci loo ne. félicitations. merci beaucoup. et la maison tout va bien. waaw dañ fay gëj na Fiona alors. tu sais moi. bon c'est pour toi j'étais pas là. et eh, mais lii lan la yow. j'espère que ça va te faire plaisir. Il y a ah, beaucoup d'autres choses. beaucoup de plaisir kay. beaucoup de plaisir. et eh, et eh, et. C'est pas beaucoup en que tu penses que Nise devait aller à l'île des biens ah, bien sûr, tu vas Et ça, Pour. Tu te fais plaisir. Je vais acheter des habits. Tu vois, comme ça. Des euh, des trucs. Euh... Nuisettes. Tu vas ricala. Ak sa bu weex ba lan. le mariage. Eh, je vais t'accolater. merci beaucoup mais tu vas bien. moi je bien. yaa ngi kuul di ma kuulaaleel. waaw di kuulaaleel waa gàlle bi. ñëpp foo nekkoon naa ba indi xaalis bi yow. <laughs> laisse ça. laisse jamais laisser tomber il faut dire. <laughs> dama demoon liggéey kese nag. ah hmm. di bos où. tout le temps des questions ngoone ah. bien sûr je veux savoir il faut poser des questions pour de être dans le bain. <laughs> tubaarikàlla. waaw daal bi tu es une nouvelle mariée hein, dois profiter de ça le reste je profite de, de, de ça mais je profite de ouvrir, la porte va te eh reposer toi ah. et eh. salut tu vas bien tu, tu le connais longtemps ça oui, oui je la oh, comment vous allez ça va très ça va va bien oui je très bien donc ah. waaw ça va maa ngi waaj lem ligne de miel xam nga tey laay def. sérieusement. il va venir aujourd'hui même. on va manger la kii euh, nu mu tuddati suluxu. Ah hmm? après on va faire la petite sieste. ah, ah, ah après on va partir en voyage.

jusque maa ngi nekkoon ci affaire nag yu baree bare baree baree. waaw nga ne da nga nekkoon. maa ngi ci ay événement yu rëy rëy nag de sérieusement dooy caaxaan. Mm. waaw ah, loolu de kon mm. allah. waaw gis nga mun naa waaw sànq boobu demee. la <laughs> loolu caprice la. Ah, nga maa yëg quoi. non yaa xam ne su ma la yëgul woon kon du la woo li la laaj foo nekk juin. waaw loolu leer na. ah mais j'aime bien nag booy. lii rafet na trop. chaque jour nga wax ma ko. Ah, parce que dafa nice. waaw nee naa la bokkul moo fi jaar yow tamit. waaw mais keppal bii nii bëgg mhm. yaa ngi koy sentir yow. waaw trop trop waaw loolu dina <laughs> moom laay toog moom tey moom du ma mm. waaw. waaye sax damaa bëggoon ñu waxtaan. waaye jàmm loolu lan nga bëgg a. xaaral ma jóg fi nga tëj pourtant fii nii baaxoon na de. kon am na yow tamit doo bàyyi rek ma jóg wax la. lan nga bëgg ñu waxtaanee loo bëgg ñu waxtaanee. la nga doy waar. boo bàyyi ma jóg kay ma wax la lu ma bëgg waxtaanee mais est-ce que xam nga ni tu es très très très belle. merci beaucoup. you look like the moon ma waxati ko. commencé ti nga. ah. doon nga doy waar. waaw loo bëgg ma jóg ñu waxtaan. waaw waaw. Euh, xam nga man je t'estime beaucoup bu dëgg. tu m'estimes. Mhm. naa la maanaam fonk naa la am naa fu mën a teg quoi. tu comprends mais ça bëgg naa dama bëgg ñu jàll ci affaire yu sérieuses yi. tu vois yaa ngi fi ñëw tout le temps yaa ngi gisanteeg waa kër gi et sa macha allah ku baax nga. ku clean nga jantal booy nga. mais benn défaut nga am mu naqari ma soof ma. wax waaw sa benn sa défaut boobu noonu neexuma dara ci yow. loolu noonu neexuma. Mhm. mooy doo déglu en plus tu parles trop tu gueules trop booy wax da wax doo dégloonte te xam nga ni nag samay nawle laa dëkkal. wala ma laay présenté lan calme-toi. Ah, expliqué wu da ngay def naa ko Kinnus Kinzu Kinza Kinze naka waa yaa ngi si jàmm yaa ngi noos yaa ngi noos ba kañ kaay lan mooy sa problème ki ne ba yow nga nekk ci kër gi di wax ba mu neex la yow waxatoo yaa ngi daan wax daan ambiance say bëñ fu ñu la fekk yaa ngi reetaan kaforee détaillé nga toog ba mu neex la nga fas sa karam toog ku wax ak doo ko faale muuma woo muuma waale woo yaa gën a mën a wax waaw yaa gën a mën a wax muuma woo muuma waale woo li tax nga tëj sa gémmiñ gi ni doo wax lan la doo ma faale ki ne ah léegi mooma nii la da ngay toog ba mu neexal rek yow bu da am envie wax wax mais ni ñi sax des fois ki ne ah. dama bëgg bala ma laa présenter samay nit. nga xam naka ngay waxee ñoom parce que man am naa fi benn xarit bu am dafa réew. yaa ngi waaw mais defal naa lan mooy loolu. maanaam gis ko ni ma bëgg nga mel ko meloo ko. waaw mais yow yow style bii jàpp bii nii délire yi nii yow moo tax nga kii moo tax tey nii mu demee nii. waaw dëgg la. waaw tu mel comme ça wala waaw wala kay. ni nga mel moom laa la bëggee mais xam nga la laa bëgg. Hmm. vis à ci ñeneen ñi lay gis. bien vrai que ni man maa war a compter mais tamit su ma ne la loolu déranger wu ma wax ma yow da nga xalaat ni man je suis pas correct. non non bien sûr correct nga. ok macha allah mais lan mooy sa cat. mooy hmm. wax dangay wax bla bla bla bla bla te loolu day énervé nit. nit booy wax ak moom da ngeen déglu. yow yow yow comme des personnes civilisées. defal naa yow comment tu as fait yow léegi yow nan nga def yow tey ba kiifee ma ba tey amuñu am xam nga instant. parce que façon amoo benn problème. malgré te man pourtant. noonu laa ñëwee noonu nga ma xamee. waaw ni nga ñëwee noonu xamee nga noonu waaw d'accord. yow tey jii man da nga war a bëgg ci ni ma mel rek. d'accord t'as raison. ci ni nga man y a que toi compte pour man. waaw d'accord amul problème li gars yi yëpp. man non euh, ëllëgee bu ma la yóbbulee sama sama papa sama yaay boo waxee ñoom nii dinañ. ah non ñoom dinañ sonn di. te du demee noonu. non non ni nga gis nga bëgg ñoom dañuy nekk loolu moom. fi mu ne maa bi ni ma bëgg nga demee. Hmm. noonu ngay demee soo d'accordé loolu nekk ci jàmm mënoo ko ma def la kon laay loo borom Espagne bàyyi la nga dem. déglu ma dara safu ci ni mu gisee nii. ki ne waa li moom mujjee naa nekk lu sérieux di lu tax waxoo ngay jooy. ki ne dama tax doo dafa ko la tooñ ci kër gi am ko amul problème fii dañ laa teree wax hmm? lan la ki man ma lay ma lay ma lay ma lay laaj looy lu tax doo wax ngay jooy lu tax doo wax de laa la laaj ngay jooy lu tax doo wax muy jooy ma tegal ay condition wala ay affaire yooyu noonu sinon man xam nga nii laay jaar dem sama yoon waa Cisco <laughs> non mais yow foo rek nga nga ne waaw toogal ñu waxtaan toogal yow tub yow non gëwuma yi non non non non <laughs> oui ma ah. maa ngi yow nan naturel. nii la demee quoi. war nga a wax ay dangay xool sa man wala nga génn bu ma waxati loolu tamit. daa waxuma ne nga génn waxee ma ko pour. dama dagg li ma doon def yëpp. mais dama bëgg nga déglu ma tamit ma li ma doon def yëpp laa dagg. man lii ma mën non non li ma doon def yëpp ko dagg. j'ai tout arrêté ñëw bàyyi nga woo ma tuye ma laa tuye léegi lii ma bàyyi lépp xamoo la laa bàyyi fële bi hmm. dama sóob sóob yu dëgër. ñëw fii nii ma ñëw nga may wax ay waxu boo kiiwul gars yi fii. mais xam nga yow réeroo am public bi taxuñu ñàkk waxtaan moo am. léegi lan nga bëgg. lenn laa bëgg su fekkee mën nga ko def foofu mën nga def ko. Hmm. n'est-ce pas rek ma bëgg. waaw léegi dinaa def ma wala bëggoo ma. ah mais je t'aime loolu ñëpp xam nañu. nit koo bëgg n'est-ce pas lu mu la tere da nga koy bàyyi. dëgg la lu mu la digal lu da nga koy def. léegi toppal samay digal. defal naa defal nànk rek defal nànk ba terme bi laa la bëgg changer rek tamit nag xam nga mënoo di tikk nii rek nga ne ma changer ma changer su ma la promettre loolu dama lay fen te bëgg naa maak ñu tegu ci contexte yoo xam ne lu am yaa ngi dégg bëgg naa lu la neex trop mais je suis comme ça laa mel man damay teg li may teg et puis léegi nag mun naa dafay effort ndànk par ndànk yow nga comprendre loolu noonu tey bu ma xëyoon tey tey tey rek ne la non da ngay changer style bi fekk si ma sama bopp di nga ko mën waaw d'accord léegi d'accord naa ak yow. da nga neex a waxal nag. d'accord naa ak ah. léegi yow. Hmm. da nga benn affaire. lan la. su ma la présenter samay nit wala même bu ma la wul samay nit. waaw ah. nañuy dégluwante hmm. moo gën a rafet lu dëkk. bu ko nekk si jaam waaw wala dégg. loolu mën na nekk. voilà loolu mën na nekk léegi amul bousculade amul buuxante. ah tu penses que man dama xaw a violent ak yow. pas violent mais sa wax moo violent yow. te violent wala. te sa cas de viol la. waaw léegi yow loolu e-, ko. non loolu la gën a neex ci man yow yow lu la gën a neex ci man. non tey rigolo loolu moom neex na ma ci yow. rigolo parce que da nga may retaan <laughs> pas comédien non mais doo comédien mais da nga may retaan loo. et tu gis nga boo ko bëggee nit boo ko bëggee. da ngay naatal xolam. di kaf ak moom. di retaan di ko may jàmm. comme li may def ak yow. waaw jàmm ci la ah, léegi pourquoi léegi nga bëgg décaler ci ñeneen ñi. non non pas ci ñeneen ñi man naa lay defal loolu ak samay délire ak yow boole loolu ñun yëpp képp ko ay ñi may tuddoo ñun yëpp man grand man bu ñu nekkee suñu bulle ma ak yow rek voilà je me sens bien quoi. ci daal waaw tey bëgg nga bii nii kay. Eh? non mais bañu ma bii sax. mais waxoon ma dara ci lii de. mais dafa rafet. Hmm? foo jëndee. sentir nga woo. naa est très joli. xam nga rek dama am samay petit coin yoo xamante ne que nii fa laay jaar. sama hmm? bu nag. bëri naa wax mais jonge naa de. ah, ah kon xam nga ne bëri nga. Ah. <laughs> bëri naa wax waaye jonge naa kay. Hmm. ah man dama nga ko foo <laughs> foo ma yóbbu. non mais dara xam nga rek. xam nga Sénégal lan moo tax affaire yi métti. Hmm. gars yi ñëw ñodd loo xam ne nekkul ci ñoom. jéem la incarné incarné ay affaire nekk gentleman bu pare nekk Baye Fall. Ah, loo nekk nga ne lii laa nekk loo nekkul nag nekkoo ko. jeex na mm, waaye nag. des fois ñoddi bi moom. bu ñu amee suñu téeméer xam nga rek. ñu bi waaw. bu ñu amee suñu ginaar parfois may ga ndànk. aka ma kaa bëgg. may ga jeex na man daal dal naa ci nag. may ga unité dix bi kañ lañu fay dem. waaw ak a neex. waaye ndànk rek laa ilaaha illallah nii naa rek soble ca marché bi waaye affaire gaa ca pharmacie waaye yow mbay sama biir xol ndax man maa la bëggal sama bopp. <laughs> naa la yow fi réew mi toll loolaa la gën loolaa la. neexul. laa ilaaha illallah. lu mm-hmm. mbay dembaay sa maam. Mm-hmm. léegi cukkuli cukkuli njiit laan njiit laan sere sere njaay njaay yow. sa maamam sa yow ba ma maree naan sa maama bënn teen waa jolof ci buuna la buuna sa maam buuna buuna mooy sa maam réew mi ku ne ku fi baax ku ne jox na la bopp laay la noo def maa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant eh, naa la namu <laughs> ah waaye lii duma ko laal duma ko laal ko laal sama xarit nga sama xarit nga la laal xam nga yow dangaa nekk nit koo xam nit ku baax nga kii fan la nekkoon kii kii gis naa kaa gis te riir kay di ci xew ba léegi laaluma lii nii de lii ñëw ci kër gi yow nee naa la lii waaw saa ren bi saa bu ma ko joxee rek ndeysaan sama baaraam dagg ko na nga ni kuñ naa ko yàgg kuñ nga waaw tubaarikàlla gis nga géer day gaaw ci géwél ndeysaan ndaxte may ak xeex ñooyam boo koy waaj doo ko def dëgg neexul waaw dëgg yaa lii moom lan la. xam naa pour corona prévention nga li laal say loxo. ah wax pour waaw <laughs> tubaari kàlla. mais gis nga sa waay. xam nga yow da ñëw ci xew bi. yaa ngi dégg nekk nit ku baax. nit ku yaru. nit ku yaatu. yéen na rek. nit ku xam nit nit ku bëgg nit. yéen na rek mbay. nga ñëw fi taxawaay taxawaay boo xam ne da ngaa mel ni ci kër gi nga bokk. xam nga Ngoné Mbaye sama nit la. ndeysaan te man ak moom danoo yàgg. waaw Ngoné Mbaye su ma wowoon sax ci sàndante xeef su may ñëw ndel laay rek dëggal li <laughs> ndax baa xam ngi laaj na. waaw waaw waaw. ndeysaan ana mu moom. Ngóone. waaw Ngóone de man de sa ay bi ma dugg see ci kër gi léegi damaa dugg rek. am ku ma dajal fii fii laa toogoon maa ngi doog a ñëw depuis ba bët ki démb ba léegi nekkuma ci kër gi. waaye nag sama waa ma xamal na leen. waaw. yaa ngi ci dara. tax nga wax lool yaa ngi ci dara. Hmm. yaa temps am hmm. <laughs> la yàlla defal <laughs> ah. <laughs> ci kër gi yoo xoolal defal sa bopp ni ci kër gi nga bokk. man. yaa ngi daanu biir la cat la bu rëy rek c'est man cat la ah. te man aw benn problème. waaw c'est que ñun. Mhm. yéen ñun. ñun nii lañu mel. ñun bu ñu ñëwee ci kër. Mhm. fekk mu mel neneen ni sax dañuy jéem a dundal ambiance. waaw. waaw parce que ñun ci ambiance la ñuy dox. waaw waaw waaw duñ dox leen lu dul kontaan naa ci yow nag. man maa la gën a léegi na kër gaa ngi nii. kër gi def ko comme sa kër. waa kër gi ñëpp yow jàppee sa bopp ni ci kër gi dee fi ñëw di añ. dee ñëw dinaa ataaya. yaa ngi wax sama mëneen nag. waaw kay di lekk. <laughs> dee ñëw di def lépp. duñu bëgg lu baax ñun géwél yi. waaw. ay walaay. waaw yaa waa ñu ni yaa awa. waaw eh, dégg naa la. Hmm? ma rek ca xew ba rek. ma kii ma ne ko. pour muy ñëw def kër gi comme këram. waaw. di ñëw di lekk di naan. loolu nit ñee bari woon xam nga ne bu nit ñu baree moom mooy contrôle benn solo. ñoom benn mm-hmm. Mm-hmm. ci buntu bi. Mm-hmm. dama la wax ni ni. soble ca marché ba. waaw waaye afral gan ca pharmacie ba. waaye yow yaa gën ci mën ndax sama biir xol laa la def. soo ma yaatalee ci biir kër gi rek delloo nga mbattu ca ndaale nga naanee. ndeysaan na sa jàmm yaa amiin waaye ñu bokk yaa wa def. gannaaw ay jàmm. waaw waaye nag loolu moom jaru woon gaaruwaale. dama laa gaaral man. fi wax léegi. sobleeg naajo bi lan la fi wut si. aliment sene. dama tudd naaj. yaa yaa <laughs> ko tontis te raxas say nopp. Ah. léegi xam nga lan la. man xaaral ma xool. maa ngi jot ay appel ni boobu ba léegi. yow mën xool bàyyi intéressant nga mel ni dañ la soxla yow dañ laa xam. Ah. ay international yoo xam ne bu ñu la daralee. man mii. laay laax la ay koof ngay laax. loo ci waat. nee. waaw maa ngi ñëw maa ngi ma xool ci biir. maa ngi a ñëw il faut ma vérifier yow nekkal à moom maa ngi ñëw. maa ngi nii di xaaral. am ak jàmm. <laughs> bon sens. yaa noo def. maa ngi ci jàmm. Fatou Mbaye moo baax ci man de lii di ci xew wala gëj a gis lii. lii ñu ma lay boole ay manette la lay jox ngay diri ma dégg la fi nga toog naan mbay sama xol laa yow sa xol bi teel teel nga koo jox Mbaye di xam nga Mbaye est-ce que nga est-ce que. Mbaye de la baax rek la ma wan ak xol bu rafet. xew mi ñëw fi. xew mi ñëw naa fi. ku yoroon xaalis bi ba jox nga woon ne koy baatare. est-ce que est-ce que waaye seetloo moon ci xew bi. ah wax dëgg yàlla xew bi moom toroxal nga mu fi ba mu ne tot totaaral yaa wax waaw ngoone mbaay bëggoon maa may nga fël loxoom téye ko loolu ba léegi maa la ko jàppal waaw tamit nag xol rek laa yor te damay gis waaw te ñun géwél amuñu habitude di yàq ay diggante waaye war ngaa defaraat sa toogaay de ni nga toggee ci kër gi moom tu es mal positionné. war nga ma xamal ya yow lan nga ma xam benn fan nga gis ma man sa toogaay ba toogaay lay defar. eh kaay xamal ne leen benn fan boobu noonu rek xamal naa la ci lu bëri. lan lan baax. lu baax. maa ko wax. <laughs> Ah. Ah, mbaax boobu de moom tubaarikàlla bëgg naa kaa découvrir de. ndax keroog daal la nga ma fi wax lépp yaa awa man dama yaakaar ni woon sax. <laughs> du yow. nit ñi buñ bari amul contrôle waaw ndax dox mbokk weesul xeeb nga ñëwaat fi. waaw ah, waaye tamit xam nga ginnaaw lay féete daal. kóllëre ginnaaw lay féete. te fii kóllëre moo fi indi. eh bu may ñëw romb naa ay kër yu bari romb naa ay xew yu bari waaye man fii moo ma saf fii laa ñëw. xol ci samay géer ñëw xool leen delluwaat ndànk kër gi waaye kenn du may de yaatal na ma ci kër gi dégg <laughs> sama xarit la daa gën daa riis <laughs> ay appel manqué. appel manqué yow chargé nga ni ko. damaa bloqué yëgoon ko. Eh? damaa bloqué. maa toll. laay laay la xew yeeg yebbi yeeg. ndeyale yeeg yëpp dañ may dañ ciy ay yebbeeg yooyu. dama ci dem. sama xarit surtout dañ may woo di soxla kuy yebbeeg yooyu. ah waaye lay la laa yow géew rek dèjà boo taxawee présentation géew rek 100000 la. jokkalanteeg wax ñëwagul. lan ngay wàcc loolu kon yaa ma dégg sama bon ci kër gi. yow kenn yow. Ah, a xam kenn day yow ci biir gi. Ah, yaa awa sa baax gi lambi ma. Ah, yaa awa yow loolaa la gën loolaal ci biir kër gi. kër gi bu nekkul woon yow kon ba léegi. couleur peinture bi changé na def nañ ko mauve. dégg ah tamit fone. waaye dinaa dinaa dinaa la boole sama xarit ku xew wala. li <laughs> xam si. ah yaa awa iPhone nga laal iPhone laa laal rek leer rek. tamit fone. waaw kii nag sa benn téer bu naan Ibou baaxkat la. waaw yaa wa yow billaay am nga noo mel am nga melokaan de mi ngi noonu ah enregistré doo ko enregistré rek ah. <laughs> daal moo la neex enregistré rek xam naa ma bindal bindal la ah lu ma ah. bind baax na nga ko mën a liir waaw kon liir yaa ngi noonu ci kàttanu yàlla foo <laughs> intellectuel haut niveau foo yaawa ana bi nga dëgg dem ah, waaw <laughs> waaw daal indi ma fi du torturé ma nii yàlla baax na loolu liir nag baax jàppal loolu. ma war a xam numéro bi mu ko jëlee. ñaareel message la déedéet direct. wuy ya. <laughs> eh ki defar iPhone yàlla na ko lii. defar iPhone ci biir xol la. léegi manqué ambiance. ambiance. ambiance maa ngi ah, maa ngi noonu. saa boo soxla ambiance la. Cheikh sax yow da nga doon wax léegi Agnès ñu toog toll ko jigéen. kër gi daa manqué ambiance de. waaw man nag tey sama xel ci maafe rek la nekk. maafe. ah eh, eh, eh, fii war ngeen kaa defar dina am wiiruwaay <laughs> fii na am wiiruwaay fii war ngeen kaa defar dina am wiiruwaay ah mbay tamit ah, da ngeen waar de. maafe daal moo nekk sama xel bi de yaa la. kon xamoo lu ngoone waaye ma ne ci waañ bi. ah kon ngi ci biir kër gi. ah ko fi laa de xaw ma. ah waaw xoolal ma. Ngone ñu ci kër gi waaw fi mu ne nii yow da ngaa salal. yéen ñëpp ma indi ci biir kër gi. fi mu ne nii kër gi nga ñëw moom ambiance bi. xàll na. waaw xamoo lu mooy. eh dëkk naa wax leen fan laay fanaan. <laughs> xol bi dara nekku ci. ni mel rek la mel. ñaanu soxor. Eh, eh, kii kan la. laa ilaaha illallah. waa Seye. Eh, bàyyi leen seen nuyoo yi. wax nga dëgg de. kii xam day wër rek. liggéey ba ah, baa ngi nii de. mooy sama xale. moom daal sànq damaa dugg ci kër gi rek mu cappal ma benn. dëgg mooy dëgg cappalaat na ma nii dëgg la mooy dëgg mooy dëgg. la Ebola virus bi de. <laughs> bi de léegi de lëmbee allah dégg naa de lépp lu nuy. arrêté lépp. Mm. xew-xew yi diine yeeg ambiance yeeg yëpp la ñuy arrêté. ah bu muy dëgg nag wax dëgg yàlla ndax. daje bi tamit aussi dëgg la jokkalante bi ak demalante bi. dëgg la bi laaj kon man mii kon fa laa jëm. <laughs> bu ñu arrêté yooyu jokkalante bi demalante bi tëkkalante man fan laa jëm. waaye sa santé la léegi léegi rek nangu nga fi te nangu nga la ñuy ah mais xam naa moom di nga jël repos moom xam naa ne kër repos moom fi ñu ko noo defee ci kër gi rek ndax weer la. li de tubaarikàlla. mais moom Serigne Ndembe sa doo ko annulé. li fi ne kenn demul événement yëpp loolu la Lune de Miel événement ñaari nit ñuy la te da ngeen dajeeg yow yow yaa yaa toog fii ni kii di nekk ci kër gi. kii nga am yaa indi ci kër gi. Ah, ok. na mais sa doon namu naa la. maa la raw. ana gi. ñu ngi sant yàlla bu baax. Eh, xew nga de. mais kontaan naa kontaan eh. naa bu baax taxawu nga ma. baax xam nga benn affaire. réew mi ku fiy xewe di ku ne nan la ñaan audience. Ngoné Mbaye def nga ba mu baax. Ngoné Mbaye ñi la yéene woon essai yëpp sëgg nañ. Mm-hmm. barke yonent bi. Ngoné Mbaye sa jour xew bi damaa recevoir ay appel ba sama téléphone bi di waaja a palanke. Mm-hmm. barke bi tey eh, xew nga de. réew mi yëngu na. yaa ci jàpp yaa ci jàpp. <laughs> jërëjëf Mbaye. waaye ba xam nga ne yow ak alaaji bi yéenay añandoo mi ngi ci yoon bi di ñëw de. déet waay. waaw waaw te maa fa laa togg tey. Eh, eh. <laughs> waxtu bu dajeeg gis. léegi léegi maa ngi koy wax yaa awa. eh kon xet gi dugg na eh, xet gi dugg na mooy. kon kon kon kon kon kon xet gi dugg na la daal. eh waxtu bu dajeeg gëstu la. <laughs> Ngoné Mbaye maa ngi fi fii laa xam ah, tey. waaw loolu laa bëgg. ayca jëlee sa temps. ataaya. waaw yow nga taay xel ko gan na nekk de lépp mën na nekk. waaye tamit nag xam nga dama bëgg yow nga jël baraada ak kaas bi xim la wala deuxième. comment xim la wala nekk. parce que yow salaamaaleykum mu nekk ah. ah, naan nag ataaya góor moom day neex fuural ma rek. ambiance la rek ba kii bi. mënta ñàkk. xew mi la de. kay ma def. wala ataaya